man de dama amoon benn laaj bu may laaj dañ naan ay jullit lañu te duñu julli ba pare damay gis it ñuy nekk ci mbedd yi di defar ay lekk di ko jox nit ñi ndax loolu dagat na ñun ñi nga xamante ne ñoo ngi jéem jaar ci yoon bi suñu boroom yoon biñ ñu sant ndax loolu dagan na ñun ñu ko ñu ciy lekk wala dëgganul ngeen jéggal ma nag dama mënut wax asalaamaaleykum wa rahmatullah subhanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka alimul hakim julli ponk la ci diine ji ñu nekk di diine lislaam su fekkee lislaam ab bâtiment la poto yi nga xam ne moo ko téye julli benn la ca amut kenn ci mbindee fi yàlla yi koo xam ne yàlla daf koo teggil julli ñu ko fim na nii yow julli wàcc na la wala leneen ci ponk yooyu wàcc na la li feeg jàmm bi mi ngi julli waru gar la boo mi ngi dund waru gar la boo xam ne mi ngi tegee ci kawam su ko defee ak su ko defut yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na julli googu mooy li ñu xaajale ak yéeféer yi ci ko bàyyi mënatuñoo wax ne mi ngi ci diine ji su fekkee ne bàyyiwut ko ci benn ngànt maanaam dofut mi ngi ànd ak xelam jékki-jékki rek bàyyi julli du tee nag la muy def ci ay mbir ñu mën a wax ne nekkut loo xam ne lu dagan la lu mel ni mu dajale dara ci xaalis dogal nit dëgg la nag mu ngay def loo xam ne ni amaan na moom njëriñ la du bari ca moom ndax dafa bàyyi loo xam ne moom moo gën a doon farata dem ci loo xam ne du farata ndax joxat nit ñi ndogu wala dajale ko sax togg ko kooku du farata ku ko def nag diñ ci am tiyaabo waaye laata naafi naafila di ñu jëriñ day fekk dañoo taxaw ci farata waaye ki nga xam ne moom lañ yëkkati loolu jox ko ko lu ko lew la su ko lekkee amul lenn loo xam ne moo ko ciy topp amu ci bàkkaar wallahu aalam asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di déwénal ci koor gi di leen baalu àq di rafet lu euh, taxawaay bi suñu yaay yi ñuy euh, wax defal ay waxtaan tamit ñu ngi leen di ziyaar ñaan yàlla mu dëgëral leen bàyyi leen suñu kanam ba ci kanam a kanam incha allah euh, li ma bëggoon laaj mooy par rapport ak shirk bi ñu doon waxtaane tey dañu gis ni dafa bare torop ci dëkk bi te nit ñi koo ci waxal surtout ci mbokk yi lu luñ lay wax mooy yow dundal li ngay dund nga bàyyi ñun ñu dund ñun li ñuy dund parce que lii yéen fi ngeen ko fekk ay xale ngeen suñu maam yi lii lañu nekkoon donc yéen mënu leen ñëw bëgg changer diine bi donc euh, lu ma bëggoon rek mooy nan ban position lañu mun a am par rapport ak euh, loolu daal jazakumullahu xeyran barakallahu fiikum dëgg la bokkaale mi ngi ci kaw kaw suuf yàlla buggul ko ci jaamam ñi waaye ñu ngi ciy tàbbi ndax nag tàbbi googu ñu tàbbi googu ciy tàbbi dañuy xëy rek ñoom raxas ko fi mu set fi wecc wala nag ku nekk ci ñun daf cay jéem a rocceeku jéem koo sori jéem koo soriloo ñi nga xam ne ñooy ak njabootam jëm koo soriloo ñi nga xam ne ñooy ak ay jege ñaaleem noonu muy law ba mujjee set ci askan wi yépp la shakka loolu mooy yoon wi mënuñoo xëy ne li fi nekk ci ay bokkaale yépp dañ ko fi teggi amaan na bu boobaa fitna bu gën a rey bokkaale dana tegee ci kaw suuf ànd na lu gën a rey bokkaale yombut ñi ngi koy gis mu nekk lu ñu naqari lool waaye li nga xam ne moom moo ci war a nekk suñu taxawaay mooy dem ci étape yi nga xam ne moom la ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne ki nga xam ne gis na du ko naqari wala gis na ñaawteef ci étape yooyu la mën a jaar ki gis ñaawteef na ko dindi ciy loxoom ndax mën nañ koo dindi suñuy loxoom suñuy loxo amuñ kàttan boobu amuñ pouvoir boobu ndax mën nañ koo dindi ci suñuy làmmiñ dëgg la suñuy làmbiñ mën nañ ko ciy dindi ci leeral bokkaale ba mu leer ci nit ñi ku yàlla nangu ci moom ak njub mu set ci wecc ki nga xam ne yeggul ci étape boobu ba mën a leeral liy bokkaale liy wéetal yàlla ba nit ñi dem ci wéet ak yàlla bàyyi bokkaale na ko nag xam lu ci xolam mu xam ne foofu mooy fi nga xam ne fa la toll te loolu mooy li nga xam ne moom moo gën a suufee ci ngëm Wallahu a'lam.